monsieur le coordinateur général du pf 2 euh, e, euh, formation école entreprise monsieur Diédhiou euh, nga nekk coordinateur PF2E ñëw xaat tuuti vraiment lan mooy njëriñu structure boobu. balaa bi maa ngi profiter micro bi tey remercier samay collaborateurs ñu may liggéeyal remercier sama. kilifa ministre Dame Diop nga xam ne tey moo ma proposé président mu confier mu structure euh, pf 2 programme formation école entreprise lu ko tax a jóg maanaam pour ma jox koy il ma def benn historique de la formation professionnelle bu njëkk bi formation jàngalekat yi dañu daan toog suñu bureau xayma ne lii la nit war a xam pour mu def benn métier mais loolu saa ñi ñuy formé ñu ñuy formé ba bàyyi leen dem ci entreprise yi ñu fa nekk dañuy gis ni loolu doyul ñu commencé at dem par l' approche par les compétences maanaam balaa ñuy xëy ma ne nit ki ci métier am lii ak lii la war a xam dañuy woo entreprise yi ñu wax ñu ñu participer ci écriture référentielle yi. référentiel bi mooy lan lan la nit war a xam pour def métier bi dañ ci daan participer mais suñu daan participer ba pare enseignants yi rek ñuy toog seen école formé ba pare libéré nit ñi ñu dellu entreprise ñu gis ni ba tey loolu doyul ci la président puisque lu ko gën a soxal mooy jeunes yi nekk employable employable mooy la jàng métier bi mun ko def ci fànn yi ñu ko war a def bu mujjee mu wër gis ay réew comme lu mel ni Suisse ak Allemagne yi nga xam ne ñoom am nañu ci expérience mooy nañu dem jël seen expérience boobu indi ko Sénégal formation nag école entreprise nag la bindu suñu bindee référentiel yi bokk bind ak entreprise yi ba pare apprenant bi day jàng école di jàng ci entreprise bi formation bi pratique lay gën nekk théorie parce que xam nañ ni technicien praticien la nekkul nit ku nga xam ne kii nekk foofu di teewul donc euh, apprenant bi su ñëwee pendant la formation day def ñeenti fan ci entreprise bi ñu confier ko foofu benn tuteur nga xam ne day topp référencé lii di ko koy jàngal ak benn fan bu ñuy def ci école bi def foofu lay defee théorie loolu mooy formation école entreprise tey jii nii formation école entreprise euh, est-ce que c'est partout au Sénégal am nañ fay ndaw représentant wala bokk euh, su euh, formation bi àgg na fa. waaw loolu suñu liggéey tey suñu tegee programme bi c'est pour que ñu fasaare ko mu mun a dem partout au Sénégal pour que Sénégal bu ci nekk foo te toll nga mun a def formation parce que beneen avantage bu ci nekk mooy te président conscient du fait formation professionnelle mooy indi jeunes yi vers euh, l'emploi gis ni école centre de formation yi lu ñu yor capacité du doy tey suñu demee transformer les entreprises en centre de formation dañuy yokk capacité d'accueil bi jeunes yi dem foofu donc ñun PF2E suñu liggéey mooy la naka la ñu koy vulgariser bi ñëpp xam lan mooy formation entreprise naka la ñuy def ba entreprise yi adhéré et que Sénégalais yi ndaw bu ci nekk foo toll ci Sénégal mën a bokk ci programme boobu d'ailleurs sa njëkk bi dañu amoon euh, kii siège bi rek la nekkoon à Dakar mais depuis un temps ubbeeku nañu commencé nañu ubbeeku di dugg ci région yi am nañu antenne Saint-Louis am antenne sud Ziguinchor am antenne centre Kaolack antenne bu ci nekk daa am un certain nombre de régions yu muy Euh, polarisées. Par exemple, l'antenne de l'antenne centre de Kaolack profité ci nga xamal leen ni ku ci nekk ndaw njaareem la mbax kontaan ñu ngi toog moom mooy le responsable de l'antenne centre de Kaolack ñoom ñoo polarisé Fatick Kaolack Kaffrine ak Ziguinchor ak euh, Diourbel. merci monsieur le coordonnateur yaakaar naa ko dañu jox le coordonnateur euh, de l'antenne centre. Mahmoud salaamaaleykum na nga def. waaw ah, maaleykum salaam suñu lay ziar bu baax. Mm-hmm. Mahmoud comme ni ko coordonnateur waxee yaakaar naa ne eh, léegi pf des e dafa gën a jege askan bi yow nga yor zone centre bi eh, depuis quand lañ la installé maa ngi d' abord euh, merci beaucoup ci invitation bi mais di profité aussi man ma tuuti ma ma ma remercier euh, ki nga xamante ne mooy peut être le ministre Dame Diop surtout ki nga xamante moom peut être moo géré de l' emploi de la formation mu ci def liggéey bu am solo ñëpp seede seede ko aussi mais aussi di remercier aussi mon coordonnateur monsieur Ousmane Diédhiou yi nga xamante ne peut être moo ñu confier tâche bi ñu yor ci tey donc en tant que chef d' jeune centre di couvrir quatre régions la base c'est à Kaolack muy Kaolack Diourbel Fatick et Kaffrine donc maa ngi ko ci remercier bu baax di remercier tous les collaborateurs du PMDG. E. voilà bon pour répondre à ta question aussi par rapport au programme je pense que euh, il est là askan bi parce que askan bi moo ko les jeunes. parce que suñu wax tey de formation tey jii ñu bëri ñooy wut liggéey xëy mais souvent duñ am qualification maintenant c' est pour répondre exactement aux besoins des jeunes vers l'employabilité donc yaakaar naa tey jii à travers le programme école entreprise xale yi dinañ mën a am métier dinañ mën a am qualification te loolu moo tax a jóg programme bi il est national donc tey jii suñu ñëwee à Kaolack à la par rapport au programme bi li ko tax a jóg mooy la formation des jeunes et pense que tey jii xale yi une fois xëy na liggéey bi na yomb ci ñoom ndaxte entreprise yi bopp ñoo njëkk a seetlu ne les jeunes ne sont pas qualifiés souvent te pour ñu am ñoom mën nañoo former des jeunes donc suñu rôle mooy lan aller vers les entreprises les prospecter pour qu'ils nous offrent des donc loolu moo nekk suñu devoir donc tey ñu si on sera dans la zone centre c'est au niveau de polariser tout ce qui les entreprises de la région de Kaolack la demande au niveau de, euh, de la oui effectivement parce que jëkkoon nañ fee ñoom benn mission à Kaolack ak Fatick Diourbel aussi ñëwoon nañ fi mais yàgg na donc bi ñu ñëwaatee am na ay demandes entreprises yoo xamante ne soxla nañu former ay jeunes donc su ñëwee peut-être il y a de cela deux semaines la ñu installé wu déjà am na ñu commencé foofu di signer ay contrat avec les entreprises et les jeunes donc tey jii bi ñu ngi defee Kaolack aussi on fera à Diourbel à Fatick et à Kaffrine donc aussi région bu nekk aussi comme a des a def liggéey donc yaakaar naa suñu ko defee incha allah xëy na programme na répondre exactement aux besoins des jeunes. merci euh, monsieur Konté euh, coordonnateur yaakaar naa dañu waaj a jeexal mais le projet bu ko waxee yaakaar naa ne euh, normalement war naa am benn durée de vie la durée de vie combien la ak objectif yi nga xamante ne nii moom ngeen fixé wu par rapport euh, pour enrôler le nombre de jeunes yu bénéficié wu ay métiers. oui la durée de vie c'est vrai comme tout programme day am durée de vie man dama yaakaar ni lu baax sa dure de vie continuer loolu lay wax chaque fois samay agent parce que li man je suis produit de la formation professionnelle jàpp ni on n'a jamais trouvé meilleure solution pour la formation des jeunes te loolu su doxee day nekk système bi nga xam ne bii nekk fii à à à jamais des pays qui le font amuñu durée. dañ ci dugg bàyyi toute autre forme formation ñu nekk seulement dans la formation duale mu nekk des pays nga xam ne taux le chômage bi dafa tuuti te président loolu nekk son objectif rendre les jeunes employables pour que ñu baisse le taux de chômage l'objectif bu ñu fixé d'abord ci phase programme bi c'est d'enrôler vingt cinq mille jeunes d'ici deux mille euh, vingt-trois vingt cinq mille jeunes d'ici vingt trois ce qui fait que pour dire que le programme normalement deux mille vingt trois la war a mais si le programme fait des résultats war na mën continuer parce qu'il n'y a pas de raison qu'une chose bu baax mu mënuñ ko arrêter dans le temps merci coordonnateur mais yan métier ñoo mën a bénéficier wu wala ban secteur ñoo mën a bénéficier wu ci programme les métiers c'est tous les métiers tey ñun euh, on n'a pas de limite parce que ñun dañuy déglu entreprise yi entreprise bu ci ñëw dañ lay laaj yow tey ci sa personnel bi ñan nga xalaat ni war nañ leen mën a ñoom ñoo ñuy définir profil yi ñu définir profil yi ba pare ñu dem juste à l'élaboration des kii ba mettre en place le métier donc quel que soit le métier boo xam dañ ci dem c'est vrai que temps yi pour aller vite dañu nekk écriture référentielle yi day jël temps te am nañu déjà ay référentiels yi nga xam ne bind nañ leen pare nañu telle sorte que tey tey tey tey suñu amee ndaw bu taxaw ñu am entreprise bu koy jël école bu leen di euh, recevoir semaine prochaine war nañu mun a commencer yooyu la ñuy traiter en priorité mais su jeune ñëwee nañu lii euh, du moins entreprise su identifier benn besoin ñun dañu war a trouver solution pour euh, saafara entreprise impôt donc loolu moo ñu fi bàyyi déglu entreprise yi en fonction de leurs besoins ñu xool naka lañ koy saafara te tey dinaa leen xamal ni daf ma daf daf ma permettre ma découvrir d' autres yi nga xam ne sax kenn mënu toon xalaat tey nous sommes en de travailler avec les hôpitaux au niveau des hôpitaux nous on depuis le technicien de surface nga xam ne nit yi dañu foogoon loolu du métier mais métier la ñu koy tuddee dans notre jargon mbindaan dañ leen di former ñu doon ay nit nga xam dañ leen di jox ay lijaas technicien de surface dans les hôpitaux c' est quelque chose de très important jusqu'au technicien supérieur en euh, en stérilisation et autres donc besoin bu nekk rek ñu ñoo koy xayma ba xam est-ce que dañ koy def en certificat de spécialité mu dakk niveau euh, BTS CAP DEP et ainsi de suite loolu ñun ak entreprise yi ñooy toog xayma xool ci li ñu xalaat ni loolu la ki war a xam ñu xam ba niveau lay toll mais on n'a pas de limitation sur les métiers on doit réviser sur toutes les branches yi nga xam ne nit daf ciy évoluer pour mën a gagner son pain. Merci coordonnateur c'est Mahmoud Konté c'est dernier mot. comme ci li nga nekk nii tey jii ci évoluer ci wàllu médiation média. tey web master cest à que référentiel bu existé la te aussi métier la jeune dañ koy demander pour def la formation donc vous en même temps vous pouvez nous considérer comme une entreprise formatrice en web master wala en caméraman ñu formé la ñu toll nii école de référence ñu def école entreprise. ah on est demandeur <laughs> voilà donc c' est en tout cas incha allah nous serons là-bas pour ça. yaa ngi peut être benn kii bu ñu xaw a fàtte mooy c'est-à-dire que l' état à travers des allocations. c' est ça donc chaque fin du mois le programme day dans un compte Orange Money. Ça sera viré directement ci compte Orange Money. donc c'est pour permettre aux jeunes par rapport au transport yi seen lekk wala seen dund yi naan par rapport formation aussi pour les motiver parce que aussi da ciy baax tey jii jeune bi def formation nga di motiver parce que dañu xëy ci entreprise ils comme des travailleurs mais de spécialité particulière donc loolu aussi xëy na benn la boo xam ne fatoon ci première année bi su demee ba deuxième année bi de façon dégressive état bi day wàññi def deux mille francs mais entreprise bi mooy complété def mille francs yu des mais mois le jeune aura euh, su demee ba troisième année bi su desee CAP xam ne pro kii euh, formation bi mu ngi waaj a jeex encore de façon dégressive état bi day def dix mille francs entreprise bi complété def trente mille francs mais chaque fin du mois dana jot quarante mille francs ci compte pour son transport et sa nourriture. merci donc comme ni ko kii waxee rek. c' est un aspect très important. de du programme. président bu mu gisee nii. entreprise li ñuy def war nañ ko def. mais mu nekk lu bees mu ne daf leen accompagne parce que tey dans le code du travail même le stagiaire am na lu ñu ko war a jox. présenté charge boobu daf koy tegg entreprise yi ñu jël ko en charge la première année deuxième année bi lu tax entreprise bi dugg te ñuy nekk jeune bu nekk ci entreprise pendant un an war na commencé di participer au chiffre d'affaires de l'entreprise donc di liggéeykat yi commencé doon liggéeykat ainsi de suite ba mu di préciser aussi que pour être éligible au programme euh, de formation école entreprise c'est tout jeune sénégalais a de seize à trente cinq maanaam ndaw boo xam ne diggante fukki fan fukki at ak euh, juróom benn ba fanweeri at ak euh, juróom war nga bokk ci programme ah. donc euh, maa ngi lancé appel pour les jeunes surtout les de Diourbel nga xam ne qui ont qui sont dans cette tranche d'âge am de beaux aires de formation nañu rapproché wu de notre antenne c'est vrai que antenne bi fu ñu ko implanté xaw naa sori pour certains Mais l'avantage qu'ils ont, ce sont les employés, les chefs d'antenne, c'est des jeunes de Diourbel. Ils sont là presque chaque week-end. su ñu ñëwee amuñu limite amuñu dimanche su ñu ñëwee les dimanches mën nañ leen interpeller laaj leen naka la ñuy def la bokk euh, ci formation c'est une formation vraiment très innovante te tey bokk ci métier yi te day permettre jeune bi dina am chance liggéey ci entreprise bu ko former parce que entreprise bi daf fay nekk pendant des années quatre jours sur cinq mooy ci entreprise bi maanaam il commence déjà à se comporter comme un travailleur en ayant les habitudes de l'entreprise li ute ki njëkk nga xam ne day jóge école ñëw entreprise jikko élève baa ngi ci xel bi bëgg a jëlaat beneen jikko day jafe mais fii dañuy def en sorte que balaa pare rek mu yor jikko liggéeykat donc euh, c'est des choses très importantes te entreprise moo lay former li ci ëpp ci formation bi entreprise bi moo koy def ñi fa nekk da ngay gis lu ñuy def su ci doo fa jógee benn lii jàngu ko loo war a jàng rek da ngay fekk entreprise def ko te ñu koy suivre à la fin de la formation en rapport avec les inspections d'académie ñu organiser examen de certification jox la sa liasse ñi am chance parce que expérience bi ñu ko defee ci entreprise bi ñu ko def près de cinquante pour cent des jeunes entreprise bi leen formé dañu leen téye ñu commencé liggéey foofu ñeneen ñi dem mais taxawuñu ñu dañuy am liggéey donc euh, c' est quelque chose nga xam ne une occasion à saisir pour les jeunes yu nekk ci ñu ngi dem xool naka la ñuy def pour jël les jeunes déscolarisés yi nga xam ne seen njàng soriwul wala seen njàng. jàng bon ñu jàng euh, tubaab quoi loolu ñu koy étudier pour xool parce que soo xoolee la spécificité du Diourbel dañuy ne très souvent c' est une région bu nga xam ne le taux de scolarisation dafa faible moi j'ai toujours défendu que parce que dañu jàng arabe dañu jàng alxuraan te ñooñu tam ay ndaw sénégalais lañu il faut que ñu trouver le moyen de les prendre en charge très vite sama équipe ak man ñu ñu travailler sur te de référence yi ñuy mettre en place ak type d' apprentissage bi pour que ñu mun leen en compte ñu def euh, formation yi nga xam ne à la fin examen bi du nekk euh, dugg classe di bind mais da ngay def ñu gis xam ni mun nga wala mun les entreprises tam dañ ci gis seen compte parce que tey di nga gis euh, nit mu yor atelier am xam-xam bu bu rëy mais kenn mënu ko catégoriser ba xam est-ce que am na niveau CAP BEP technicien wala ingénieur le programme en rapport avec les autres directions du ministère ñu ngi dem vers li ñuy ne la la VA la validation des acquis de l'expérience pour que atelier bi ki yor atelier bi au lieu que moom muy formé da jox nit diplôme bu sut moom lu mu yor parce que moom yorul benn diplôme mais bëri na xam-xam ñu xayma ko ba xam ban niveau la yor ñu décerné ko ci mu jàng école wala bañ a jàng école dañu am lu ñuy defee ñu koy defloo benn test examen ba mu am diplôme nga xam ne su demoon tey ba bëgg a dem uti liggéey ci ak ak bi mun na yëkkati ne man technicien supérieur la man BEP la wala man ingénieur la bien vrai que jàngul école lan la leneen la jàng donc euh, njëriñ am na ci programme bi président ak ñu ko xalaat dañu jéem circonscrire tous les besoins que ça soit des entreprises des jeunes sénégalais et autres pour que ñu tax ñu ko régler ko dans le cadre du programme de formation école entreprise merci monsieur le